xam nga gis nga fi ñu gars yi bëgg wootal moom lañ dul nangu ñun li ñuy wax waxuñu président de la république bu mu am dara déedéet waxuñu président de la république warta am sécurité déedéet ñun dañu ni comme moom la yàlla jiital ci bopp réew mi kon moo gën a yey keneen ku dul moom pour joxe des leçons de rectitude pour joxe des leçons de transparence pour joxe des leçons pour wane ni alalu réew mi itteel na ko parce que gis nga bu fekkente ni yow jamono ji ngay woo Sénégalais ni nañ takk seen biir sa fond politique wàññeekuwul sa train de vie wàññeekuwul say bëgg-bëgg ak say confort wàññeekuwul lu dul rek non attends attends ma terminer lu dul rek dañuy <laughs> gis ni suñu njiit yi uh-huh. ils ont des appétits de riches et des goûts de petits bourgeois mais xam nga Momar interpellé na la léegi si loolu euh, train de vie bi gënoon na fay metti bi nga nekkee ministre parce que au moins léegi am na décision yoo xam ne jël nañ ko si véhicule yi ñu wàññi ko véhicule de fonction yu bëri am na loo xam ni jéem nañ koo def te peut-être que gisuñu ko woon moment bi nga nekkee ministre. Mhm. te pourtant boobu taxul taxul ngeen wax. même yéen sax bokk ngeen si gouvernement boo xam ni c'était à peu près une cinquantaine en tout cas plus de quarante membres alors que président Macky avant mu yéeg yéen ñëpp ngeen ànd di campagne ñaata membre la waxoon. engagé pour un gouvernement de vingt-cinq mille. yéen ñëpp te pourtant bi ngeen demee président Fallou indi gouvernement dugal leen si yéen ñëpp avec presque une cinquantaine de membres kenn waxul. man de bi est-ce que vous n'avez pas été complice également. de li nga xam ni. alhamdulilah comme l'histoire est là pour témoigner. Mhm. man ci gouvernement yu njëkk yi bokk. jusqu'à ce que bi ma ciy génn en 2014. les gouvernements étaient de taille normal raisonnable raisonnable waaw alhamdulilah rabbil alamin ba leneen la sama yoon nekku ci na sànq lañ topp ña diwoo suukar donc pour revenir rek ci li nga xamee ni mooy li ngay li ngay li ngay laaj ci train de vie bi nga nekk train de vie bi xam nga toujours nee naa la si forme de régime yi ñu yor président de la république yi cëram daf ci am doole lool ndax te boo remarqué aussi premier jour gouvernement bi nangu nañ fi ay oto yu bare bare bare bare ah. dem nañu ci facture téléphone yi presque diminuer que de deux tiers. c'est vrai deux tiers yi ñu récupérer ko ci facture téléphone yi. ce qui veut dire que ni bu ñu bëggee sérieux pour régler affaire yi y a moyen de le faire te loolu histoire la ñu ñëpp ñoo ko fi fekkee. wax nga te loolu terewul président la terewul waaw non euh, jamono jamono yooyu jamono yooyu si première mesure yi bokk na ci directeurs généraux yi nga xamee ne seen salaire yi dafa téppoon ñu ñu wàññi ko limité ko ce qui veut dire que ne gis nga affaire yi il faut que ñu am habitude bu ñu defee lu baax ñu consolider ko mais tey jii après quelques années après xamuma facture téléphone bi ñaata la mais je suis sûr que ni bu yeggulee fa mu yeggoon 2012 na ko dépasser <laughs> c'est clair comprends ma la qui veut dire que esprit boobu muy mentalité boo xam ne dafa nekk suñu bopp yi moom la ñu war a jéem a dindi gis nga Babacar euh, les solutions qui ont marché partout ailleurs suñu ko appliqué wulee fii mënuñoo am résultat c'est il faut que ñun sénégalais yi ñu xam ne ci àddina la ñu nekk en vingt ans Deng Xiaoping fekk na un régime socialiste communiste boo xamee ni gabegie yàq fo caaxaan réorganiser ko moderniser ko ba mu nekk une puiss la première puissance économique du monde. mais fii Afrique rek. donc donc y a une discipline gis nga sénégalais yi il faut que sénégalais yi gëm ni man Cheikh Abdoulaye daf ñu daan wax ni nee na diggante simmi mbubb mi ak sol mbubb mi maanaam diggante simmi mbubbu tappale ak mbubbu sàcc ak mbubbu naafeq ak sol mbubbu dëgg. mu bu liggéey mu bu reyante pour réew mi tegu si yoon loo gaaw gaaw yaramu neen dox fi il faut que ñu accepter une mutation de nos mentalités ñu àndandoo moo tax man toujours damay wax mais le problème le euh, problème euh, est le problème est-ce que du est-ce que président la ñu gëmul ci war parce que junni ko ko sànq ci biir wax waaw nee nga bi mu wootee ci jamonoy Covid bi même ñu ñu yaakaarul woon ni dinañ ko fekk dem nañ ko fekk wuy ji mm-hmm. yow mi ca nga bokkoon mm-hmm. waaye terewul ci ginnaaw gi bi mu wootee dialogue national nga ne yii mbiru tappela la waaw waaye tey dafa mel ni mbir mi yoon bi woon na may na la dëgg parce que dialogue national bi daanaka dafa laati kaaf commission yi fi nekkoon muy commission économique sociale déggatuñ leen commission sécurité dégg EP déggatuñ ko mhm. comité commission ressources naturelles déggatuñ ko modernisation de l' état et territorialisation des politiques publiques déggatuñ ko. dëgg la lenn sax mooy tax nit ñi am impression que ni dialogue mi ngi wéy ba léegi muy commission politique. te commission politique gis nañ li fa tuddee. encore daanaka dara génn fa. encore que ni sax gis nga Momar boo ko seetee ba si biir même ci gestion wu Covid bi gis nga la ñu waxoon ca xaalis ba ni dañ koy jëndee ceeb ci ay camion mbalit la mujjee muy benn benn boo demee ba ca biir nga xool li ñu soutenir ay entreprises étrangères. ak ay entreprises yoo xamee ni réalité d'origine étrangère réalité bi ñuy dundu ci réew mi ñi impacte véritablement ci Covid bi du ñooñu gis nga man di même bi ñuy waxee ci problème mu emploi mu ne dañuy dugal quatre cent et quelques milliards jëm ci wàllu emploi mais problème bi du foofu ndax les dernières enquêtes yi ñu wane ci réew mi dañu wane ni ñàkk ndóol gi tar na ci Sénégal tar goo xam ne dans la banlieue fii ci Ndakaaru ci biir banlieue bi am na borom kër yoo xamee ni benn bool la ñuy teg par jour te xam nga lan la teg som bi mboq lañuy ñuy teg te duñ ko suukar xorom dong lañ koy defee mais mais gis nga yooyu laa la mooy les vrais problèmes yi am gis nga gis nga gis nga gis nga bala nga naan naam ne fa tey jii bala ngaa emploi il faut que ñu soutenir famille yi man de suma doon moom cent cinquante milliards yu njëkk yi. damay jël six sept mois yoo xamee ni dinaa jël def ko ay bourse cinquante mille yoo xamee ni dinaa ko jox quatre cent mille familles pendant sept mois. mais taxul ñu génn non attends attends attends attends parce que xam nga li muy def mooy ab kër goo xamee ni cinquante mille francs dafay dugg lu mu bon bon bon bon. Euh, antiisu ceeb bi diwlin bi. ak suukar bi wala diwlin bi dina wàññeeku. mu wóor ni la boo ko defee pendant sept mois di nga jël temps. teg programme ak projet yu mën a quantifier yu ñu mën a vérifier yoo xamee ni suivi bi dina war dootul doon ay emploi yu précaire mais day doon ay emploi yu durable ba pare doon ay emploi yu décent maanaam liggéey bi ngay jox xale dafay sax ba pare du ko mën a may mu gis boppam ci mbir mi si nga yu mel noonu mooy mbir yi li taxoon keroog ma ni daw ma woon ci dialogue politique bi ndax ba mu njëkkee woote ca dialogue politique bu njëkk ba man ak lu néew ñoo accepté woon dem mu def fa ni dafay def journée nationale du dialogue jël fa ay mesures yu dul jeex ndekete yoo weer wu lax koo guy la <laughs> juba ab ak Ablaye Wade moo ko taxoon a <laughs> jóg ci affaire ba ba mu ca paree mu pare ca <laughs> nag mag nag dëgg-dëgg man bëgg naa nit ñi respecté seen bopp ak fonk seen bopp. mu yóbbaale leen pour ci woo Ablaye Wade ngeen waaw ba pare yóbbu ñu ci ay maanaam dóor ñu marto dóor Sénégal yi marto <laughs> non dafa dóor Sénégal yi marto te ab président bu non président bu dóor marto président Macky Sall day mel ni moo leen gën a garaaw daal non gënuñoo ni président moo leen gën a garaaw xam nga moom moom lu mu bëgg rek lu mu bëgg day teg eh, day teg day teg affaire gis nga boobu premier dialogue ba dañuy rouler dans la farine dem lu génnee Karim Wade euh, bi mu nangoo bi Massalikul Jinaan mi ngi doon xool yoon bu mu bàyyee xalifa Sall may ko grâce. Hmm. jubóog Ablaye Wade mbir mi apaisé wu. waaw moom dafa mel ni daal chaque fois mu am ngalaju. non day mel ni moo leen gën a non non gënuñoo xam nga naa bëgg naa Sénégal yi moo leen a xarañ ci politique. loolu ay nitam sax ñu ngi koy bàkkoo Babacar hmm. may ma tuuti rek ma def précision boo xam ne bu ñu ci hmm. jógee dootuñu waxati loolu. <laughs> gis nga il faut que Sénégalais yi xam ni xelub njublan lu way gàtt gàtt gàtt xel aay ci. xam nga ab président fan la ñuy wootee xarañam mooy bu jouer ci difficulté yi nga xamee ne contexte national ak politique ak social mook ko imposé mu jaar ci wane xar baax wala bu dee ngéwal ñu ne mu wane ngéwal jaar ca kaw génn ay solution c'est en ce moment nga mën a wax ni kii vraiment c'est un acteur politique de premier plan mais njublang maa ngi woo sama ay nawle gor woo leen te maa ngi làq leneen lu bokkal ak loolu. non bañ na ba naa fu may léegi njuut njaaje. nga xamee ni nga xamee ni kooku loolu sottiwul. et puis ensuite. ensuite sur le li tax man ma rejeté deuxième dialogue beeg troisième dialogue. après dix minutes nga am waxal ñu si Saint-Louis ngi ñëw moom naa la ko ci waxal. mais li tax man ma rejeté dialogue boobu. te bu ñuy wax dialogue ñu ngi jooy léegi assemblée nationale boo xam ne ministres yi ñëwatuñ fa. mais c'est les lieux privilégiés du ñaareel ba li mu naan dañ koy def réforme ci politique mais n'importe quel acteur politique n'importe quel analyste politique boo ko joxee dix minutes mu defal la réforme yi war a am ci système électoral bi yëpp est-ce que jar nañu fi yàq ay milliards. li ci waar mooy 28 mai bi passé. boobaak léegi juróomi fan la. Ah. nee nañu woon mooy journée nationale du dialogue. waaye dafa mel ni ma je n'ai vu aucune référence. dafa ci bokk au dialogue non <laughs> loolu xam mel ni c'est passé inaperçu. ah chez tous les acteurs nag. mais gaayab bi mu bi mu wootee gaayab dañoo xelu dañoo xelu dem fekki ko fi mu nekk nii ñoom euh, ñoom Cheikh Bamba ñoo ñoo des opposition bi léegi da ngeen néew. Eh, mais foo leen toll ak néew ngeen trop. xaaral ma wax la nag trop trop non xaaral ma jox la beneen cax ci affaire bi gis nga sénégalais yi xam leen ni <laughs> opposition ak bopp xale lu góor ñoo yem. <laughs> boo wotee ba defe ni jeex nga boo wëlbatikoo day saxaat bu bees tàq te karaw yi ñëw ñooy gën a dëgër ñooy gën a résister. ban ambition ngeen am locale yi. mais yi. ñun au de Ndar yow nga xam ni. peut xam nga xam nga xam nga uh-huh. dafa am lu ñu naqari ci réew mi surtout ku mel na man. nga xamee ni alternance daf ko jaral lu nekk. parce que dafa jàpp ni on perd trop de temps pour yóbbu Sénégal fa mu war a yegg. Mm-hmm. temps boobu ñu perte nag moom laa bëgg Sénégalais yi. Mm-hmm. jàpp ci pour que ci local yi ñu récupérer un peu de temps perdu pour mën a rattraper li nga xam ne moom manqué ci collectivité territoriale. yow candidat nga mairie Saint-Louis. ah waaw waaw tant que maa ngi dund di am kattan. Hmm. te yàlla mi ma tiim jàppale ma. ndax expert laa ci àddina yëpp jëm ci wàllu décentralisation. te sama jaar-jaar ca ndar defe naa ne doomu ndar yi doo suñu ko fàtteeti boobu. loolu moo tax nga am benn mandat rek ndar. loolu laa expliquer léegi ñu def rek ñu doyal ñoom. moom moo moo tax ma ni la wolof nee na kuy bëgg a lab. ku ko tàllal jaasi mu jàpp ci. <laughs> xam nga réew mi boo ko nat boo ko naqee ci ndóol ak ñàkk bu tar boo xamee ni c'est la résultante des actions politiques moo ñu indil situation de sous-développement bi ñu nekk. quand nit ñi bu fekkente ni am dépense comme ni ma ko doon waxee situation yi nit ñi dund seen biir kër mais ki nga xamee ne tey jii benn bool lay teg te bool ba yàlla xam na kooku bu jamono élection wee mu gis ni ñu ngi koy indil bis bu nekk ay dépense yoo xamee ne dina am ba jéegal su defu defulee taxaw seetlu tuuti danaan man de sama benn carte bii de jëriñu ma dara kii di ma dimbali génne ma ci sama jafe-jafe yii li mu bëgg moom laa koy jox ah Cheikh Bamba Cheikh Bamba moom sama carte bi du ko yàqal dara bàyyi rek ma dugal ko ci la nga naan du ko yàqal dara xamuloo ni waajoo ñëw di dugg si sa kër yow yaay junneelu kër bi nga xamee ne dugg na fa def lu mel noonu donc yooyu aussi il faut que sénégalais yi yeewu si gis nga élection yi mhm. il faut que sénégalais yi xam ni maire du ku mu ku neex ak ku yeew rek jëm defi ko il faut que nga natt sa bopp mhm. xam ni bërëb bii fii nga fii nga fekke baax nga natt sa xam-xam sa jikko ak sa maandute ak sa yéene pour sa gox jëm sa kanam nga takk sa fit parti boo mën a bokk nga impliqué wu ci li nga xamee ni mooy defar gox yi ndax bu ñu nee territorialisation des politiques publiques il faut que mu am ay kàngam góor ki jigéen yu nekk ci gox yi am xam-xam jub maandu pour mën a dimbali askan wu mu jëm ca kanam li tax man may nekk candidat à l'élection municipale de Saint-Louis dama xam lan laa fa fekkoon ba may ñëw j'ai trouvé six cent et quelques millions de dettes à la fin de lane j'ai payé la totalité ma ñëw fekk ma fa ñaari oto te je prends à témoin doomu ndar yëpp. defal leen fa cinquante deux véhicules ba ma fay jóge. yaakaar naa notre réalisateur. Kalajo yamul ci foofu am na yi nga xam ne yóbbu nga fa. Ah. ak ak ni mu yàqoo léegi ah. waaw gis nga gis yamul ci foofu. Saint-Louis nekk la seule ville bi nga xamee ni am na un transport scolaire gratuit maanaam douze bus yoo xamee ni aux couleurs de la ville de Saint-Louis yoo xamee ni mooy yóbbu xale yi gratuitement. ñu am quatre ambulances mutualité médicalisées ak unité de gériatrie deux médecins quinze infirmiers yoo xamee ni ñooy toppatoo seniors yi si seen biir kër di am seen taxawaay naka mu war a taxawee yamul ci loolu même Linguère de Saint-Louis bus bii ñun ñoo ko ko may brandeel ko ko ni mu mel nii yamul ci loolu ñu tabaxal usine pavé def ci plus de cent quarante millions walbatiku tabax soixante huit kër dans le cadre du changement climatique bi ñu demee parce que Cheikh Bamba Dièye moo ko def ils ont laissé l'usine pavée yi tëju à l'air libre yàqu maxe ba lépp raaf. yow kay cappaaccio li nga yow ndar warul woon weccu kenn. <coughs> non <coughs> mais est-ce que bàyyi nga xel Paline wi parce que Paline wi. bu fekkee li tukkee ci dialogue national bi dëggal nañ ko. suffrage universel direct lay doon. Mm-hmm. muy risque bu rëy nag ci kàngam bu mel ni yow. Mm-hmm. ndar. Mm-hmm. nar a jiite liste bokkul ak liste proportionnelle bi nga xam ni moo la yóbbu législative nga amaat poste député de. déedéet est-ce que bàyyi nga xel. Palin lii mooy ambulance médicalisée gis nga. gis nga Palin gi. Mm-hmm. li tax moo jàppandal sax bi paa def naa ne. bii la gën a fa bàyyi bi nga nekkee bii la gën a yaakaar bii la gën ndax lan ndax doomu gox yi. Mm-hmm. bu ñuy fal dinañu xam kan la ñuy fal ndax bu démb da nga daan di fal ab liste rek. kese gënoon a feeñ sax ngay yaakaar ne moom ngay may sa carte bu ñu demee ba si biir mbuxum ba dugg ñu fal keneen koo xamee ne bokkul woon ak bëgg-bëgg waa dëkk ba mais léegi ki ngay fal day nekk tête de liste majoritaire boo demee dangay xam ne Cheikh Bamba Dièye la contre Massamba wala ma dem même loolu wóorugul. ils n'ont pas encore gis nga gis nga gis nga beneen bii oto bii. Mhm. lii lay wan ne man ak ñoom bokkuñu. gis nga oto yii ma def aux couleurs de la ville de Saint-Louis. ñoom bi ñu ñëwee. dañ koo transformé dañ koo transformé. marron beige en marron beige. <laughs> waaw loolu xam nga gis nga gis nga. gis nga moo tax gis nga gis nga régression gis nga baaxul ci réew. gis nga nit ñi il faut que ñu am détachement man dama daan wax waan Ndar ni man man ma mairie. te duma ma fi faatoo. donc je suis là pour un moment waa Saint-Louis dama leen wax lu leer nañ nee naa man duma koo ko sàcc du ma ko caaxaane kenn du ko ngéntee kenn du ko sabare ku mu neex ku mu naqari noonu lay demee. Et c'est pourquoi j'ai pu mettre une radio municipale et je leur ai laissé en héritage 25 milliards d'investissements. xoolal bus yi nga xamee ne moom laa leen génn xoolal nañ ko mujj traité est-ce que lii mooy defar su fekkente ne da ngay gas ñenn nii di suul kañ la ñuy defar kañ la ñuy baaxal. ah yaa lii lii lii. yaa ngi interpellé yaa ngi interpellé Mansour Faye. monsieur le tamit am na ci bilan moo fi fal nit. est-ce que bilan bu baax. Ah. def liggéey bu mucc ayib. mooy fal tax nga nga farwaat. wala est-ce que entretenir <laughs> clientèle politique. waay cest nit ñi soxla nga taxaw seen soxla est-ce que du nit ñi loolu la ñu gën a préféré. que ku leen di defal. Euh, loolu am na ci am na ci bu bare bare ci nit ñi c'est une question. <laughs> loolu moo tax <laughs> sénégalais yi ma leen di ñaan. ngeen wax xam léegi lan mooy nattuwaayu maire yi lan mooy nattuwaayu député lan moo war a doon nattuwaayu président de la république ndax koo xamee ni. bi muy wut rusul jël alal ju moomul di ko foowee ko distribuer ne la wir ni bu la jiitee tamit alal ji nga xamee ne moom la la war a liggéeyee daf koy caaxaane daf koy fowe da koy dugal si lu yoonam nekkul il faut que sénégalais yi xam ni élection du sabar élection du mbumbaay <laughs> élection jamono tànn la te ki ngoy tànn dafa war a doon ko wóolu te Sëriñ Tuubaa dafa ni wa man tawassala bi waasilin wasal ni wa man tawassala bi aksfin fasal nee na ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des ñaari jigéen dugg ci train kenn ki brûlé kenn ki fay billet ñoom ñaan yëpp ñu boot seen doom ki fay brûlé ki ki brûlé bi ko contrôlé bi jàppee gaar bi mu njëkk jot daf ko fa wàccee ñaari xale yu ndaw yëpp kenn si ñoom fayul billet matub kenn ki moo tax ñu bàyyi fa bàyyi ka fa bàyyi fa ndeyam matadib keneen ki moo tax ñu wàcc ka wàcce ndeyam donc il faut que yéen ñi nga xamee ne yéen a moom seeni gox yéen a bëgg alal ji ngeen am ci ndar wala am ka ci ndakaaro wala am ka ca Kaffrine wala am ka ca Kédougou wala nga am ka sa maatam mu dem ca mbedd ya mu dem ci cet bi mu toppatoo lamp yi mu toppatoo ñi nga xamee ne mooy besoin yi nga xam ne moo am ci dëkk bi am ngeen obligation farata la ci yéen bu ngeen dee tànn ngeen bañ a xool couleuru parti yi bu ngeen dee tànn ngeen bañ xool t-shirt yi mais xool leen jikko yi lii laay war a sóoli c'est la seule condition bi nga xamee ni moom la ñuy laaj citoyen bi pour que ñu parfaire suñu démocratie pour que ñu dimbali réew mi pour mu taxaw te il faut pas que nit ñi gëmloo leen ni que ni politiciens yëpp ay sàcc lañu wala ay tappalekat mais comme comme bi c'est important ñu wax si tuuti. xam nga ndar euh, dëkk y la pêche. Mhm. nga wax ak waa Guet Ndar bon la pêche ak problème yi ñuy am ak la Mauritanie. ak embouchure bi nga xam ne mi ngi rey ñu ñu dul nga xam ne bu ah, Mauritanie mayul ay licence ah. de pêche te gis nañ fa également euh, pétrole mm-hmm. yooyu yëpp boo ko mëngaloo lan nga xalaat ni Saint-Louis dayo bi mu war a am léegi bu uteeg quand même bi mu nekk temps yii ma wax yii yëpp boole ci problème changement climatique bi ah. ak dox bi géej gi di dox jëm ci kër yi di ko yàq ak bël bi nga xamee ne am na ca brèche muy brèche bi am ca euh, fale ca langue de barbarie bi yooyu yëpp moo war a tax nag kuy tànn maire ku nekk bu yeboo nga xoolaat ko muy benn mais li gën a am solo dans ce problème là président la république ci jamono yi mi ngi waajal conseil présidentiel jëm ci wàllu napp gi mais moom nan ngay reyee benn secteur ba pare di ko wutal conseil présidentiel parce que li rey secteur bi d'abord moo di accord yu ñu signéenteeg union européenne muy benn ñaareel ba FAO wax na ni Sénégal dina ñàkk chaque année cent cinquante milliards ci napp gu illégal goo xam ne ñu ngi koy napp ci suñu biir ay eaux territoriales yemul ci loolu depuis 2003 ba léegi plus de quatre cent et ñeenti téeméeri nit lu teg faatu nañu ci bël boobu te en économie dañ lay xaymaal bakkanu doomu aadama bu nekk ñaata la ci impact bi muy am ci économie bi te c'est des enfants yoo xamee ne entre quinze vingt cinq ans trente ans maximum ñoo fay faatu et ce problème là li muy laaj cent milliards la pour la li nga xamee ne mooy la mise en défense ci li nga xamee ne mooy langue de barbarie ba ba nga yegg ci hydrobase bi euh, dindi nit ñi ci booru géej gi wutal leen ni kër yu ñu dëkk ba pare defar fa benn zone tampon ak digue beneen bi nga xamee ne moo jëm ci wàllu euh, mise en défense su brèche bi stabilisation am dañoo jël sept milliards jamono yële wut entreprise chinoise toog ba a entreprise ba daw ah 7 daw xaw ma fu mu mujjee ak xaalis ba gars yi nag ñu ngi expliquer seen explication ku daanu ci saret mais il faut que ce soit sérieux man mas naa am audience ak Ablaye Wade jamono yi ma nekkee maire à l'époque il y au moins rien que pour la pour le port fluvial de Saint-Louis plus de vingt cinq milliards yoo xam ne dañu waxoon dañ ko ciy def gis nga ñu ngi defar autopont yi fii à plus de cent et quelques milliards. Ah di def bus euh, auto li mu naan. Euh, BRT bi à plus de trois cent milliards. alors que cent plus de cent mille personnes son impactées ki seen dund ki seen sécurité seen njàngub doon ci seen demub école ci seen yeewu ci seen digg te dara. il demande à la collectivité nationale que ñu investir cent milliards dans la zone pour stabiliser que mënuñu fexe ba am ka loolu laa ni la regarde xool ni nga xam ne moom la moom la géej gi di impacté. ci ci li nga xam ne te lii ñuy wax naan moom la ñuy def. day bu bopp gendar lay yem. du laal cimetière yi te ñëpp xam na ne érosion côtière fa nga yem. foofu lay commencé di di rattraper waat l'érosion alors que la zone cible bi nga xam ne mooy première zone bi mooy les cimetières de saint si nit réewu jullit yi gis nga le lien bi am entre doomu aadama ak cimetière am imagine toi que ñu yeewu Saint-Louis géej gi attaqué cimetière u saint fan la ñu jëm ak loolu yàlla nañ ci yàlla musal li nga xamee moom laa bëgg wax mooy que ni Saint-Louis dafa nekk dans une réserve de biosphère de trois cent cinquante mille hectares boo xamee ni cinq sites dañ ci classé au patrimoine de l'UNESCO donc mu nekk dans un environnement boo xamee ni extrêmement fragile boo jëlee wàllu exploitation gazière bi tey jii am na zone boo xamee ne mool yi mënatuñ fa jaar léegi kon pour ñu mën a nappi foog ñu teggi yoon donc yaa ngi yokk seen pénibilité ci seen wàllu liggéey yaa ngi indi impact gazière ak pétrolière boo xamee ne bu duggee ci écosystème bi mën na tax zone yii yëpp day doon zone yoo xamee ne kenn doon fi mën a nappati mhm. te conséquences yooyu moom laa wax ministre bi ni leen yéen bu ngeen dee def naan naan euh, la responsabilité sociétale des entreprises ak euh, euh, mesures conservatoires yi am dafay mel ne vous ne réfléchissez pas sur les conséquences parce que le code de l'environnement bi ñu dugal mhm. il ne spécifice pas de manière claire et nette la redevance et les conséquences yi nga xamee ni état wu Sénégal mën na ko teg une société pétrolière bu fekkee am nañu péril en haute mer. moom mooy def lu ko rek mooy. te gis nga te boo seetee boo seetee aux états mhm. Deep euh, Deep Horizon bi nga xamee ni en Floride am nañu problème boobu mais Exxon mhm. Mobil américains yi dañu leen fayuloo jusqu'au dernier dollar lépp loo xamee ne réhabilitation bi la ak reconstruction wu faune bi ak lépp loo xamee ne impact environnemental la ak impact sur la vie des gens mhm. maanaam gis nga ñun gis nga Sénégal xam leen ni addina mhm. gi les gens sont sérieux yeneen réew yi nit ñaa ngi liggéey bu ñuy tasanteeg seen nawle dañ koy wàcc mais am réew moo xamee sa digganteeg Mauritanie bi gën a jege munuloo ci fexe stabiliser ko ba nga xamee say doom dinañ fa mën dem nappi ni Union européenne amee fulla ba jël ay sa paxitu milliards ñoo fay Sénégal pour mu am capacité napp Sénégal bu jëloon li ñu ah. xoolal li ñu perte rek par an cent cinquante milliards yi ñuy perte par an si suñuy ressources pétrolières hmm. bu ñu ko fayoon Mauritanie dinañu napp pendant vingt ans te Mauritanie duñ du ñu a benn problème donc xam nga donc les solutions sont là non sont là ah euh, on est terme mais euh, de l'émission avant que Momar euh, di joxe xalaatam de nekkoon nga fi ministre télécom non oui dafa am benn benn coow bu ñu da mm-hmm. mooy coow loo xam ne affaire fréquence lu mel ni 2STV am partenariat ak Eutelsat. nga xam ni ñoo koy jox fréquence yi pour mu mën a def direct. diggante bi gis nga contentieux bi am entre la 2STV ak TFM bi nga xam ni eh, dañ ko accuser mu pirater. fréquence wu est-ce que loolu doon na la arrivé bi nga nekkee ministre doon nga yëg genre genre coo yooyu. xam nga mbir yi moom il faut que ñu xam ni la RTP aussi dafa am rôle bu mu war a jouer. ci mbir mi li taxoon ñu ne dañuy jógee ci analogique ñëw ci numérique bi. mooy que ni dañoo bari am superposition aux fréquences yi et je pense que ni quelque part dafa jot nag pour que Sénégal ñoom ñi nga xamee ne ki seen gouvernement dugal nañu ay milliards yu dul jeex ci infrastructure bi ah. que ñu wane nag si oui ou non les infrastructures yi tax ñuy dugal ci xaalisu Sénégal et puis ñu wax nit ñi ñaata lañ ci dugal est-ce que ñoom ils sont à un niveau technologique bu war a tax superposition fréquence bañ a mën a am ah. te yooyu normalement dans un pays qui se dit warul mën a am parce que ki nga xamee ni parce que affaire fréquence tamit sëñ bi tamit ça de source donc j'estime que ni mm. on nous a vendu quelque chose mm. pour un prix exorbitant sans pour autant que la qualité y soit ça c'est c'est ma perception mm. de loin mm-hmm. mais li nga xam ne moo ci am solo ba am solo et vous me permettrez même ma dugg ci affaire boobu mooy que ni l'audiovisuel dafa am solo dans le combat bi ñuy mener dans le monde pour notre identité culturelle ndax aujourd'hui ngeen baal ma question bi ñëwu ci mais dinaa ko si saraxal eh. l'Occident même dafa jël pression bu jiggi dayoo tekk ci suñu réew mi pour wax ni ñu ni ñu organiser suñu société du noonu eh. ni ñu bëgg a yare suñuy doom du noonu <laughs> ñoom ni ñu jàppe ni noonu la ñu yare seen doom ak ni ñu organiser seen société liberté ya ñu jox seen bopp nee na ñooy liberté yooyu moom la Sénégal par force war a imposer wu war <laughs> dund war ko gëm eh. mooy suñu héritage coloniale il faut que sénégalais yi xam ni la loi sénégalaise doit répondre au besoins des sénégalais maanaam loi yi ngay tëral ci sa réew bu munulee faj soxla yi sénégalais yi bu yeboo nga bàyyi ndax wolof nee na geenu fas bu ko sàngalulee awraam dàqalu ko weñ dagg sànni moo si gën deuxièmement aussi il faut que ñu am courage parce que bu ñu sàgganee ba nit ñi yàpp ñu manqué ñu de respect ba bu ñuy joxe suñu ay résultats donte examen blanc la dañ ñooy fonto bu di si dugal affaire LGBT yi nangam sangam dans des formes yoo xamee ni qui sont une agression mais mais yabaate bii man dama xamul pour lan la et le gouvernement du Sénégal aussi est interpellé parce que convention yi muy signé ay PNUD ak yenn organisation yi il faut que ñoom ñu clarifier ko ou des deux choses l'une soit refus bi Macky Sall wax ni du ko mos a nangu ci wàllu góor jigéen ak yi demee noonu lu wér la wala bok dafa joxe bopp rocci lamine et ça aussi il faut que mu leer. <laughs> deuxièmement aussi. ah moom je crois li mu wax leer que ni non dafa xam nga. xam tant ngi fi moom on on va jamais voter la loolu loolu ñu ngi ko ciy sant. di ko ci gërëm mais. Hmm. mais à côté il y des accords parce que le PNUD a un référent. LGBTI genre lañ ko tuddee mais loolu lay toppatoo te yooyu il faut que ñu dénoncer ko ci dëkk bi ñaareel bi aussi li nga xam ne daal moom la ñu war a gëm ñun Sénégalais yi. mooy que ni am réew boo xamee ni cent pour cent de croyants la war ñu am liberté choisir seen mode de vie ak seen société bi ñu bëgg question de liberté la mm-hmm. question d'éducation la mm-hmm. il faut que waajur yi taxaw si mm-hmm. euh, médias yi taxaw si société politique taxaw si société civile bi taxaw si parce que na Jules yi taxaw woon wax au siècle dernier ni l'école sera la champ ultime où sera décidé si l'État est laïque ou pas mm. ou la société ñun tamit su suñu bopp mooy que ni tey jii ñoom ils ont décidé door que ils vont se battre contre nous dinañu xeex ak ñun pour wax ñun ndax ñun dinañu am droit société bi ñu bëgg wala boog ñoom société bi ñu inventé la ñu war li ma la ci li ma la ciy dolli rek mooy nga la presse waaw man nga parce que le nouveau code de la presse ci benn article man nga joxe waale say dernier am na ci benn article bu xaw a ëlëm ñu bëri mhm. muy article 18 nga xam ne bu ñu ko jëmmalee mhm. képp kuy journaliste sañu too wax ci gëm-gëmu nit ci diineem ci apparasam ci sexam ba ci orientation sexuelle bu fekkee nag boo waxee ci orientation sexuelle yoon daanu ci sa kow loolu mooy nañ bàyyi ku ne mu def lu ko neex mu def lu ko neex donc mbir moomu jar na bàyyi xel donc li mu naan joxe bopp rocc làmmiñ waay defe naa war na leer dañ ko war a dañ ko war a xool de sëñ Babacar gis nga waaw nga joxe wàlla sa dernier ah, man man man daal gis nga affaire bi man dama jàpp ni am réew ña fa dëkk ñoom rek ñoo am sañ-sañu wutal ko yoon bu muy jaar ñun dañoo way ngëm lañu am na loo xamee ni suñu boroom moo ñu ko araamal si suñu dund te il y au Sénégal une citoyenneté spirituelle qui est bien au-dessus de la citoyenneté légal et qui contribue bu wér ci développement réew mi ak pas-pas yi ak ngëm-ngëm yi te sóoraale ko dafa baax lool ay jullit lañu ay way gëm lañu il faut que ñu am courage ni réewu tubaab yi amee fulla ni li ñu am ñun ñu forcer ba ñu bàyyi ko adopté li ñu am ñun nañu am fulla taxaw ci seen kanam ndax maam Abdou maam Abdou daf doon wax ni uh-huh. nit ki boo seqeek moom pour finir boo seqeek moom mm. mu ñëw li nga am mu ne dafay ñëw di ko foye wala di ko yàq nee na fulla gi mu am di ko yàq amal fulla gu toll noonu pour gàllankoor daal koy jàpp merci merci monsieur waxtaan wi neex na am na solo eh, waaye Momar <laughs> waxtaan wi neex na am na solo defe naa euh, dégg nañ fi coup de dégg nañ fi cri de cœur <laughs> euh, ba mu tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla ci symbolique bi ñu commencé ci li ko lëkkaleeg mois de juin sénégalais itam tey xam nañ beneen facette ci Cheikh Bamba parce que taxaw na ab diir wax ci boppam ñu wax ci mooy kan wax ci digganteem ak waajuram bi nga xam ni ci moom la jëlee parti bi euh, wax na itam li mu namm ci ndar ak samp ndënd bi mu fay samp ndënd ci élection locale yi waaye rek ma koy bàyyiloo xel nag paline bi euh, parce que Cheikh Bamba Dièye 2001 bokkoon na ci ay élection législative élection législative yooyu ci mode faline bu mel ni bii ñu jëm la woon nga amoon ci zéro virgule quarante neuf pour cent mu joo doon député 2007 nga ànd ak Benno Siggil Sénégal doon député waaye 2017 ñu yaakaar ne da ngay samp sa ndënd ci list majoritaire Saint-Louis waaye da ngaa préféré bàyyi liste majoritaire ba nga xam ni risque ngi ci woon ñëw dugg ci proportionnel bi ci nga doone député donc bu ñu dëgmalee ay élection mu am suffrage direct yu mel nii boo sampee sa ndënd dañ la bàyyiloo xel façon paline bi bu fekkee dëggal nañ ko maanaam risque bu rëy moom ngay jël ci ku nekkoon maire samp nënd ci koo xam ni ki fa nekk moo la fa jële woon ngeen sëkk ko ci suffrage universel direct dafa naa ndama ngi ci waaye ngàcce gi ci waaw mais mën naa ci sonni benn affaire ndaw rek